Euh, salaamaaleykum bro maa ngi lay waaye delloo ziar moom. baa ngi ci sant bu baax alhamdulilah. yow dafa mel ni bokk nga ci manager yi nga xamante ne ñoom ñooy yore yi nga xamante ne ñoom ñooy bis ñuy liggéey ak moom euh, tey tiis mu mel ni daal dal seen label bi euh, en tant que frère en tant que koo xamante ne ngeen waaw affaire yi métti na torop torop torop torop parce que démb la affaire yi am presque ay 19 heures maire bi dafa entré woon fii si hôpital Dalal Jàmm donc mu amoon benn. métti rek bu ko bi ko daloon far yàlla daal lii la yàlla dogal daal mais métti na trop franchement waaw. feebar dafa yàggoon si wala déet. yàggul yàggul yàggul yàggul parce que presque vendredi la la entrée fii hôpital Dalal Jàmm euh, démb la presque mardi ay 19h la wàcc liggéey waaw. tey jii nga doon liggéey bi gis nga doon koo xamante ne mën nañu wax sax yaay manager am parce que bi boss moom mooy chargé de production bi mais tey jii nii euh, nan nga gisee ki nga xamante ne moom nga sa dund wax waaw Bibis moom euh, franchement comme ni nga ko waxee dafa nekk suñu label ñu naan ko Damel Record ma nekk foofu manager des artistes nek manager am Bibos aussi nek le producteur du label nek aussi le PDG du label. donc euh, Bibis moom wax dëgg fa yàlla képp koo fréquenté sax nga xam ni mu bëggee ak rêve yi mu amoon aussi pour mottali pour pour pour pour yaayam. waaw parce que saa suñu nekkee wala suñu joué dara sax lu mu am sax su luwee balaa mu see def dara suñee yaayam la ko yaayam la koy jox. defe naa képp ku ko jege xam nga ni mu mel si yaayam xam nga ni mu buggee si yaayam ak ni mu rêve yi mu amoon pour defal ko yaayam la wax rek mu ne Weuz man damaa bëgg a tabaxal sama yaay kër ma ne ko waa loolu yëpp dina loolu yëpp dina am waa mais aussi yàlla nii la ko bëggee waaw mais daal yàlla yàlla moo tali daal li des. en tant que nga xamante ne frère am nga koy gis euh, muy live chaque instant ba bi yaayam di feebar sax nga gis critique yu bari nga xamante naan sa mi ngi feebar ngay ngay ngay ñu bari xamuñu ne demee en tant que ñi a koy doon noonu doon waaw affaire yi xam nga liggéey moom euh, liggéey peut-être liggéey la te Bibis tëbul tëb di live li mu nekk si contrat la parce que tey dafa nekk si contrat signé ak partenaire waaw ñu signé ak ay partenaires kon donc loolu da ko war a def te peut-être loolu su ko deful sax peut-être am na lu mu mun a pénaliser après parce que xoolee si biir feebar bi lu mu nekk xale xale xale xale xale moom ak ay magam ak ay raxam lu mu am rek indi na ko pour fajaayam kon donc mun nañ ne sax su doon xaalis kon moom mooy faj peut-être maire bi dina jug waaw donc parce que li mu am yëpp yëpp yëpp ak contrat yi ñu am yëpp da doon jël li mu am yëpp pour pour yaayam jóg rek lëmb rek defe naa maag bi boo sax ñu ngi toog barki démb si guddi. boobu maa ngi koy envoyé xaalis parce que boobu dafa ordonnance la waroon jënd moo koy envoyé noonu xaalis maa ngi toog sama ak bii ba di ko ne ndeysaan bi de instant yi lu mu am moom loo ko jox rek instant yi si yaayam la jëm waaw ah, donc affaire yi daal sant yàlla daal j'ai pas les moo parce que c'est triste metti na trop mais sant yàlla bu baax a baax a baax di yaa di ko ñaanal yàlla yàlla may ko xolu muñ njaboot gi mu fi bàyyi yàlla teg si loxo waaw tey jii jàppoo ne liggéey bi dina xaw a métti tuuti parce que ki nga xamante ne moom mooy yaayam donte sax doon na ci teg loxo yaa ngi comprendre doon na ko a jàppale ak waaw xam nga yaay dafa nekk lu foor yaay dafa nekk lu lu fort waaw donc peut-être mën nañ ne dina am changement mais dañuy jël lépp tegal ko si loxo yàlla waaw lim fi yàlla ba peut-être yaayam avant moo dem sax toog nañ waxtaan si lu bëree bari mu am ay dénkaane yi mu defoon waa ñu ñu waxtaan si lu bari peut-être dans les jours à venir dinañ def interview ñu gën see waxtaan. ah parce que instant bi moom nekk nañ si diis mais daal yàlla yàlla baax na waaw li si des daal yàlla na si yàlla teg loxo ñu yàlla may ñu aussi ñu mottale moom fu ñu bëgg a moom yàlla teg si loxo ba ñu egg ak moom foofu ba mun a réaliser rêve yi mu amoon yëpp yëpp yëpp incha allah. Hmm. ñu ngi waaw moom yow aussi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax depuis affaire bi mu amee gis nañ seen taxawaay di remercier aussi sénégalais yi depuis démb presque tey defe naa li ma jot sa si appel doy na waat ñëpp di laaj ndax li dëgg la donc nii la ko yàlla namee woon nii la ko yàlla defee jëlaat nañ lépp teg ko si loxo yàlla incha allah. li lii passé aussi Bibis dina dina communiquer nit ñi dina taxaw sant nit ñi ah peut si tiis la nekk mais. lépp dal après dinañ ko mettre dans les heures inshallah di santat ñëpp di sant sénégalais yëpp ah, di wax que ne sant nañ yalla bu baax alhamdoulillah atia voilà mi ngi non gis ngeen tay ñu ngi xamantane moy koñu bu bis sa su ne comme ni ngeen ko daal gisé euh, tay nak wax dëgg fa yàlla képp ko xamni célébrité la gis nañ ko fi ndax nak don lo xamantane tay ji jii gis nga gaay ñu ngi daanu fu ndax denc nañ ba paré waaye tamit mu doon naqar bo xamantane wax dëgg fa yàlla Euh, sénégalais yi tey ñu bari ñëw nañ fi influenceurs yi ñu ngi fi waaye tiktokeurs yi ñu ngi fi gis nañ fi ay ñoom njaayloo gis nañ fi ñoom seega gis nañ fi ñooñ mënul lim wax dëgg fa yàlla ndax bibis day koo xamante ni ku sori ci xolu sénégalais la waaye tamit day koo xamante ni wax dëgg fa yàlla ku sénégalais yi di bàyyi xel mu doon koo xamante ni wax dëgg fa yàlla tey natt boobu moom moo dal ci kawam kooku nga xamante ne moom mooy waajuram bu jigéen digse denc nañ ko ba pare waaye ginnaaw bi ñu ko dencee pare gis nga li nga xamante ni moom mooy nit ñi ñii ngi daanu fu ne waaye tamit ñii ngi yuuxu fu parce que saa su ne naan maire bi jàmbaar la waaye tamit day koo xamante ni wax dëgg fa yàlla ku doonoon ku doon jàmbaar la ndax da doon teel xëy guddee wàcc bi bis saa ne lu mu mën a am ak lu mu mën te nekk jàppale na ko ki nga xamante ne moom mooy waajuram bu jigéen gis ngeen tey ci géejewaay façon nit bu nee wàcc si na fi si ki nga xamante ne moom mooy bibis mu doon koo xamante ne gis ngeen waajee solo bu lali magu bibis la mën naa ne moom mooy taawu yaayam ah, comme ni ngeen ko gisee nii waaye boobu ba léegi daanaka ñu ngi dugg ak a génn di wane nii tey nag ndogal wax dëgg fa yàlla wàcc na seen kaw waaye tamit ndogal dal na seen kaw te tamit am na ci loo xamante ni mënul ñàkk waaye nag saa su ne comme ni ñu koy daa defee rek di leen di ko ñaanal yàlla suñu borom mi nga xamante ni moom mooy ki gën yàlla na ko yàlla xara waaye tamit yàlla woyofal suuf ci kawam ñu koy jàlle képp koo xamante ni influenceur nga waaye tamit di ko xamante ni tiktokeur nga waaye tamit ko jàlle képp koo xamante ni bokk bibis nga wala xaritam nga wala am di jàmmam nga ndax tey fii kokkan bi nga xamante ni moom mooy euh, lycée Limamoulaye ci Guédiawaye Euh, ñu bari gis ngeen ñu ngi daanu di wone ni tey ji am na lu bari loo xamante ni métti na leen ci ci dem ki nga xamante ni moom mooy demu yaay bi bés ki wax dëgg fi yàlla mi ngi noonu saa su ne comme ni ngeen koy daal di gisee. Mhm. gis ngeen. Mhm. saa su ne gars yi. Mhm. ayca jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax topp gi ngeen ñu topp waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ñun ñu ngi taxaw ki nga xamante ne moom mooy Zo Beauté Cosmétique di frère ci bibis waye tamit di directeur ci bibis mu doon ko xamante ku ñu ku ñu gis ñu gisee bibis bibis gis ko té nañu ñu koy laaj nan la yégué li nga xamante mu ngi xébal do ma lay siyaar ma délu siyaar bax mon frère euh, di kontaan ci sen téway vraiment ku ne xamna ni ci nakar la nekk ak ci euh demb lañ ko yëg ci guddigi vraiment ñu koy jaalé sunu rak sunu lepp vraiment yalla boole ñu mu ku doon ku bëgg yaayam vraiment yaayam dina ko marqué bu baaxa baaxa baaxa baax di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana su sedd si kawam di ko jaale Sénégal yëpp di ko jaale gaay yëpp vraiment Bus moom kenn la quoi te ku bëgg yaayam la te dina am lu ko manqué ci àddunaam. Euh, saa su ne dañuy gis sa place la buñ bu ñu na existe lu na si ndax saa su ne live yu bari sa place da koy live tey bi nga yëgee li nga xamante moom mooy naqam nan la def en tant que koo directeur am nga frère am mais dafa ma metti parce que yaayam ku baax la saay bu ñu déggantee danaan ma dénk naa la bibis sa frère la sa sœur la sa lépp la vraiment te loolu noonu nekk lu ndaw vraiment euh, lu ma metti la vraiment di ko jaale ñëpp di ko ko jaale e di ko ñaanal yàlla sàmm ko euh, sàmmal ko ñëpp ñu fi bàyyi daal vraiment jërëjëf. <clears throat> Euh, tey jii ngay liggéey moom tey yan moment moo la gën a marqué ci ki nga xamante mooy Bibis mi ngay liggéey. mooy xale bu baax la xale bu yaru la et ku bëgg li muy def la et ku bëggoon a jàppale yaayam la.